jërë ngeen jëf euh, yéen ñi ñuy topp ci suñu bi di 221 people tey nag euh, amaat na kontaan ak mbégte bu baax a baax a baax fas yéene leen a dalal benn kilifa boo xam ne ni kenn du ko présenter ti ndax euh, ñun ñëpp xam nañ ko rawatina li wër ci réew mi bitim réew diaspora bi ñu koy de Cheikh Abdou Gningue ñu koy dàkkantale borom Ridwaan xam tey nag ñu ngi ci biir àll bi àll boo xam ne moom xam naa tey su ma fi indi woon sama mbokki ndawe nii moom xam naa dañ naan seex non du ma mën a dugg Cheikh Abdou Gningue dañuy bàyyi nga nuyoo ko mbokku askan bi bismillahi rahmaani wasalaatu wasalaam ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman asalaatu wasalaamu alayka ya sayidina ya waliyullah ya nuuru masaabihu bi xudratullahi wa kun muisan lana min sarri sil asadin ma sarri famin wa sarri ayni yallaahu wa sarri sihrin wa sarri xalqi insihimo ma jinnim wa sawatil summi yallaahu mhm. sëriñ Cheikh asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tarkalla jërëjëf nee naa leen kooku mooy borom ridwaan di Cheikh euh, Abdou Gningue tarkalla kontaan naa ci nuyoo yu set yu sell yooyu ànd ak dal fi may tambalee mooy comme ni ma ko waxee woon xam naa sax sama dugg bi fi woon problème la ak euh, sama caméraman bi nga xam ne xam naa ñemewut yi ndax su koo gis gis naa fi lu fi mel ni euh, benn béy bu ñuul gis naa fi lu fi mel ni benn euh, mën naa ne nag bu ñuul te yooyu yëpp dafa xaw a ragloo ci man ma gis ne am na yoo ci def maa ngi ci doon laajte sax damay bàyyi nga gën a leeral ana lan moo wund lii lépp lan moo waral lii lépp. waaw alhamdulilah man liggéey bi ñuy def. Mhm. lépp lu mu laaj dañ koy def. tarkal tey doomu aadama yi bu ñu yëkkatee seen alal jox la. Mhm. di liggéey loo bul xool li nga ciy gañe dëgg la fexeel ba ñu am résultat ci li ñu ut. tarkal moo tax bu ñu waree def sarax. dañ mhm. koy jël def ko ni ñu ko war a defee. dëgg lii pour montrer rek nit ñi xam ne. Mhm. ñun caaxaanuñu ci li ñuy def. Mhm. waaye nag nekkul lu bon lañ ci jublu waaye li ci ëpp. boo gisee ñu génne lii mooy am na lu ñu def nit. ba tëj ko ci àddunaam dugal ko ruq boo xam ne mënatut a am dara. est-ce que mënatut def dara ba réussir ci àddunaam. loolooy tax ñu def loolu pour sangat ko pour dindi li newal ci yaramam. maanaam lu ñuul li mooy tegtale maanaam dañ ko bëgg génn ci li mu nekk mhm. ginnaaw nag bu ñu jógee fi am na yeneen sarax yu ñu war a def yoo xam ne mhm. sarax yu set la yu leer la yoo xam ne mhm. ngir gën ko ubbi ci wàllu wërsëg la ginnaaw loolu nag dina am ay càngat yu mu def bay bu ñuul bi tamit pour nit koo xam ne la dafa bëgg a yëkkati ko bëgg am tur bëgg bayre kooku lañ koy defaral bu ñu ko defaree pare defaral ko lépp day taxaw ci ko der bi sangoo saafara si mu wàcc ci kaw mhm. bu ko defee incha allahu rabbi turam dina jug te dina siiw incha allah. Mhm. Mhm. nag bu ñuul bi it lan lay. day dindi lépp loo xam ne jafe-jafe bu nekkoon ci nit la. waaye nag day fekk nit ki mu attan li nga xam ne mooy liggéey bi. boo dee bu ñu ko defee mboolem xat-xat bu newoon ci moom. ndax da ngay gis ku am projet yu mag. ci yoo xam ko war a réaliser. mais dañuy taxaw baare la ba loolu doo ko mën a def. léegi nag su ko defee nag loolu bu ñu ko waree def nag. mooy waral ñu indi yu mel nii mën naa ñuul suba mën naa weex. ça dépend mais nekkul ne dañoo jël nag bi pour mu raglu pour nit ki mën cee liggéey déedéet. tarkal foofu nga nekk euh, am na solo mën naa ñuul mën naa weex mais euh, fi nga duggoon neex na ma ndax euh, jafe-jafe nit ki moo tax yii yëpp ngeen ko ci def wax nga ko su ngeen ko du ngeen defee li ngeen ci war a def sangat yeeg lépp li ngay xam ne di ngeen ko complété pour moom mu mën a delluwaat ci activité ni mu ko bëggee woon mais dafa am ci ñoo xam ne duñu gisee genre yu mel nii comme mala yu ñuul yi nii ni koy def dañu yaakaar ne ay sacrifice la ndax seen gis-gis yooyu noonu nga leen koo leeral rek nga wax leen li ne ci biir yëpp waaw foofu du sacrifice ndax tey nit da ngay ñëw. Mhm. am yaakaar ci nit ànd ak moom di liggéey. jël sa alal investir ko ngeen ànd di liggéey. Mhm. kon moom dépassé wul benn dërëmam ci li ngeen di liggéey waaye yow yaa dépassé sa alal. Mhm. léegi moom mu dem ba mbir mi tàmbalee neex. mu tàmbalee laa teg tànk di la liggéey di def yu bon ci yow. léegi nag pour loolu ñu mën koo sippi. delloo ko ko moom mi ko defoon. mooy waral dafa am secret bu ñuy def mooy leget gi nga gis nii bu ko defee bu ci nit ki sangoo. ñaan ci eh, nag bi ñu ko. mooy tegtale ni lépp lu newoon ci moom dindi nañu ko ci kàttanu mm-hmm. yàlla. Mm-hmm. delloo ko moom mi ko defoon. ndax am na ñoo xam ne maanaam ni ñuy liggéeyee. Mm-hmm. lu bon lañ lay def. lu bon loolu nag pour nga dindi ko. il faut nga tuur deret mënut a ñàkk. da di lu doy waar loo xam ne maanaam yenn yi ñemewuñu cee wax. parce que euh, du yoon ndaxte ñëpp la ñuy déglu. mais daal koo xam ne intéressé la boo ñu woowee danañ la jaarale fi nga xam ne fa la yoon bi war a jaar. ana lan ngay wax euh, sa yeneen mbokk sëriñ si nga xam ne dañuy def benn liggéey bu bon bi jëmale ko ci nit ñi. waaw mooy la la waxoon rek. ki nga xam ne dafa am xam-xam bu bëri. Mm-hmm. xam-xam bu bëri dafa dafa baax. Mm-hmm. nit am ko ba pare amut lu mu dunde dafay soxor. ndax tey boo amee xam-xam boo xam ne mën na rey nit. Mm-hmm. xam-xam boo xam ne mën na faagaagal nit. ndax am na ñoo xam ne ñu ngi leen liggéey ba ñu tëdd hôpital. médecin yi def nañ analise def nañ rajo def nañ scanner. mais dañ naan gisuma dara te nit ki mënut a lekk mënut a naan. kon am na lu ko def. nit ki tëdd di jooy di yuuxu fu mu toll. am na ku ko def. xaati moo ko def wala muy koo xam ne dañ koo sampal ay biteel wala muy koo xam ne dañ ko kort léegi nag loolu nit a koy def moroomu nitam. mais man daal li wér te wóor mooy. Mhm. du ma ko def. mais kuñ ko def boo ñëwee ma dindi ko. Mhm. incha allah jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Abdou Gningue euh, borom Ridwaan dinaa am kontaan nag pour dugg ci yow waxtaan lépp lu bokk ci nguur gi ndax foofu moom dama ci waxtaan ak yow dama ciy kontaan ndax euh, man yëf yi bett nañu bett nañu bëri muy remaniement bi nga xam ne am na ci nguur gi coow li gis nga Idrissa Seck te kaaram bi yàgg na bërki démb démb rek lañ ko woo mën naa ne démb moo ci dugg ñu woo ko gis nga ko mu ngi ci nguur gi demam bi nag fi mu ne nii jur na coow ci réew mi yow bi nga ko déggee yan njàngat nga ci am ak lan nga ci tiiree comme leçon yow yow lan lan lan lan lan lañ namm ñoom ñaar. alhamdulilah gis-gisu nit ñi nag dafa wuute. Mhm. waaye gis-gis mënut a weetu gis-gis rek ndax ni ma ci amee sama xalaat la ci keneen amee xalaatam. Mhm. réew mi dañ koo bokk ma jàpp ne celli mag nelaw. gis nga mag bu nee cell mm. bul jàpp ne la comme idi bu nee tekk ñun ñëpp war nañoo xam ne am na lu mu nekk léegi nag dem gi mu dem ci nguur gi man bettuma ñaareel ba it metti wuuma tout sax metti wala waaw parce que dama jàpp ne bu dee am na xam-xam réew mi soxla ko ki ñu fal Macky Sall la ñu fal ñun faluñu Idrissa Seck Macky Sall mooy seet ku ko neex ku ko war a jàppale ci réew mi ñu ànd liggéey kon moom comme bu dee doomu sénégalais la mm-hmm. am nationalité Sénégal mm-hmm. président bi am na droit convoqué ko ne ko poste bii laa bëgg nga diriger ko pour réew bi mhm. su ko refusé pour man li muy woote du dëgg ci moom. mais kàddu démbam su dee dañ cee dellusiwaat. dëggalu ko benn nit mooy wax du dañ. te ma astaxfirullah ma naan nit kenn rek mooy wax du dañ xam nga kana. waaw mooy suñu borom tabaaraka wa taala. ku dul moom da ngay wax muy dañ. waaw foofu daal nga ko mën a. waaye nag nit sëñ Cheikh Mbacke dañ ko ne. Mhm. yow de sëñ Cheikh Mbacke dañoo gis loo wax def ko mu ne déedéet du lu ma wax def ko lu ma wax nar naa koo def. ndax mhm. nit di nga sabab lu bëgg def dara suñ borom ray la di ko ndax def nga la nga waxoon kon nit ki li mu wax. Mhm. ne lii la bëgg a def. dane woon fes yéeneetu ma. Mhm. kenn di ma jox décret bu may jiiteloo ci réew mi lu dul sénégalais yi. waaw nguur gi. waa ki sénégalais yi fal nag moo ko woo ne ko dama bëgg nga dirigeel ma lii ci réew mi. mais daa bëggatu woon mu jiiteeti ko. te fi mu ne nii dañ koo jiite jox ko place. ma laaj la moom fi mu ne mooy vice président Sénégal ndax xam nga loolu. moom kay fi mu ne nii moom ak luñ ko mën a kii moom wuy ji na rek wuy ji bi nit ko woon. ci moom mais nit ñi mais ñoom ay libéral la ñu bëri ci ginnaawam fi mu ne nii ñi ko toppoon xaaj bi yëpp découragé nañ ñu ngay fàq. sëñ bi dama lay wax leen nga xam ko. gis nga bëri na lu nit ñi naan bu wërta dem wërta dem wërta dem. Hmm. ku ci ku ci lettre bu Macky Sall fanaanoon sa kër. Hmm. yow buntu pale ngay fa yeewu jee. du doon Sonko de. sonkoo ah, mais Sonko gis-gisam la Sonko ñeneen de du leen wooye duñ dem. Sonko c'est normal. Sonko ñamagut nguur xamagut lu nguur gi di saf. nañu bàyyi ba Sénégal yi ñamal ko nguur ba mu génn ci nguur ba xam duñ ko woowaatee dina di ba mu dit sa waa est du dafa gëm bopp mooy loo tuddee gëm bopp ak ñàkk gëm bopp maanaam euh, dëggal rek nekk ci opposant bi dañuy def su 2024 bu jaante est-ce que du day espérer xam nga man pour pour man pour man Sénégalais yi hmm. seen ak fal ak seen ak folli hmm. teguñu ko ci li nit ki di def hmm. ñoom lay neex rek ñu fal mu naqari leen ñu bàyyi man loolu li yaakaar ni pour mu jox pour mu jox ko réew mi. ñii naan ah, mën naa téewaat nguur gi Senghor kat fii lañ ko joxoon suñu réew mu koy li muy play du doxut moom ba Senghor fii lañ ko joxoon réew mu koy ba tey loi yi fi nekkoon fi nekk ñi doon war ci kaw mbaam yi ñooy war kaw mbaam yi ba tey ñi defoon mbaam yi ñooy mbaam yi ba tey ñun sénégalais yi ñu ngi war ci suñu kaw ba léegi wàccaguñ ñu jërëjëf am na solo li ci kanam raw gët loo xam ne mu ngi ci suñu kanam yàggatul dara jërëjëf euh, Cheikh euh, Abdou Gningue borom Ridwane dañu des ba léegi ndax euh, du ma ne actualité ndax lu tollook ay bés la rek ñu ngi ci doon waxtaane ci côté tarixa tiijaan yi mhm. gis nga wax ji beneen kilifa yëkkati mhm. jëmale ko ci xalif général mën naa ne kan la cheikh nañ koy waxee waxeeti sax euh, cheikh sëñ Moustapha jëmale ko ci ci xaw ma kële xalifa xalifa bi waaw xalifa tiijaan yi ne moo sacrifié kii di Pape Malick jóge ci ci man la bëggoon a jëm wax ji yëpp dégg nga ko ana loolu bi nga ko déggee nan la def ci yow metti na ma waaye du ko weddi du ma ko dëggal ndax doomu aadama moo wax nañ ko jàppe doomu aadama buy wax li ma ciy wax nag muy kàdd yoo xam ne na ko senegal yëpp bàyyi jaxal hmm. képp ku bëgg a siiw taxataal sa kër bàyyi bu ngoon jotee ba ñëpp tëdd di nga bëgg tëddi mu tëdd nga ne maa ne ku bëgg a tax nga taal sa kër bàyyi hmm. bu ngoon jotee bu ñëpp tëdd di nga bëgg tëddi mu tëdd am ñu déggut olof na ko senegal yëpp dégg noonu hmm. dama ne nit ku bëgg siiw bu la taxee taal sa kër bàyyi laa wax taal jël almet taal ko mu takk bu ñëpp dee tëdd dinga bëgg a tëdd mu la ñëwal. salaamaaleykum wa rahmatulah du ma ci waxaat pare naa ñu. waaw. tontu naa sëriñ bi. waaw na leer. leer na nañ. waaye yàq bi am na lu gaay di kii. wallaahi yàlla seede na ne li ma wax lu ko gën a leer mënatuma ko wax. tarkalla acca jërëjëf am na solo léegi nag euh, dañuy dox euh, wéyne bu baax a baax a baax ma njëkkante am ci question yu ma jël rek ay ponk ndax xam na ne mënta ñàkk ci liggéey bi damay ñëw ci liñ naan ak jinne mm-hmm. su la neexee nga njëkk ci rab rab ci Abdou Gningue rab lan lay def dëgg dëgg ci nit ki lan la ko mën a yàqal ak lan la ko mën a apporter loo xam ne comme njëriñ la. sëñ Cheikh tey damaa bëgg nga wax nit ki lan mooy rab ndax ñu bëri dañ ciy wax mais xamuñ ci dara te yow mii ni xam nañ ne ku ràññeeku nga ci mbirum rab ak jinne ñëwal ci rab. sëñ Cheikh bëri na ku ñu wax rab. Hmm. rab bëri na ko jàpp ne borom maa rab moom moo am rab. na war rab mbir mu compliqué la. lu invisible la loo xam ne bët du ci tege. Hmm? rab nag dafa nekk mbir moo xam ne li ëpp ci Sénégalais yi seen maam yi ñoo ko fi samp def ko fi suñu maam yi ay ceddo lañu woon. Mhm. mooy tagut un siècle ba tey ceddo gaa ngi ci réew mi ñu daan tuur deret ci taati ndaa ay garab ay xamb. Mhm. di fitis loola lay moom la ñu tuddee rab. bu guddee mu leen di joxe information yu dara du dindi moom ngay dégg ñu naan samp nañ xoyya. te lépp fii lay leer. Mhm. te fii lay leere nañ ba tey jii may wax jóguñu fi am na fa. Mhm. lenn na nekk nga jàng bàyyi ko te boo feebaree ñu yóbbu la ca. léegi nag rab moom bëri na ku la koy fajal bu ca duggee moom ci jëmmi boppam sax day far am problème. man de li ma jaaxal da ngay gis nit jékkee jekki rek daw pëccati ko kii di yooxu kii ak yooyu. ñu gars yi di téye di dar ñu ne de de de sa émission bii ngay def nii am na seriñ yooyu defal émission. ba ñu duggee ci faj arab dañoo feebar maa leen faj. ah. barki rasulillahi sallallahu wa sallam. moo tax rab du gone dëkk mag moo koy dëkk boo amul wéeruwaay boo ci duggee dangay ngay dee. jinne. jinne rab boo soreewuñ jinne nag yàllaa ko sàkk. Mm-hmm. muy koo xam ne ku saay-saay la. ni nit amee caay-caay di def ak caay-caay la ko jinne amee. nit jullit di amee caay-caay di ko def la ko la ko la ko rab di la ko jinne di defee. waaye nag jinne li tax mu gën a compliqué mooy dafa lay mm. forcer lépp lu lay def loo te gis nga lépp lu mu la def loo ba nga fekk ci ko ba def ko mm. bu terminé ba da ngay dof li ma jaaxal kay doo waxee ñu ne lu mu la may dina ko fay da koy moom ak yam du ko joxee noonu alalam da koy nungu nga xam lu tax ma koy nungu mooy mm. koo xam ne lu mu romb fàtte na ko li ci kanamam la xam mm-hmm. kon boo amul doole mu ànd ak yow boo néewee doole mu wan la ginnaaw boo soqi koo bi jaaw mu tàmbali laa jaaweloo xam naa génn góor gu mën na faj rab mu mm-hmm. nekkoon dëkk bu ñuy wax waalo mu wax dëkk ba nag da cee aayoon ba nga xam ne bu ñu indiwaan dof bu egsee ci buntu kër naan tekki leen ko. rab wala jinne la doon faj. jinne ak rab yëpp la doon faj. <laughs> wallahi asim bi muy waaj a faatu. dem na ba àgg ci maanaam day raam di sumeeku di jooy xaj. ko nee sangu mu ne mukk du laal rab yi day toog ci néeg bi dañ koy dóor ba mu yuuxu ba ñëpp di ko dégg. xam nga lu tax. lu tax dafa fexe woon ba xam nu ñu koy faje te mënut a aar bopp moo tax mën nga bëgg a dékku la na dama koy faj fekk daa uti ay ñaan ci ay sëriñ def këram ba boo duggee ci kër gi rab yi bàyyi la jinne yi bàyyi la waaye moom mënut a faj rab léegi nag bu ci jógee moo tax ne ku ñuy faj rab fekk boo ko laaj naal sama maam daan faj rab daan faji jinne ñenn ñi ne am nañu fi am ay alal yenn ay jinne leen ko may loolu ay sacrifice la rek man mi proposé nañ ma ko am na ndaw su ñëw ci man ma koy faj bi ma jàppee jinne ji fekk naa ci lu mu néew néew lu ma juróom-ñaari jinne bi ma moom bu déggee sama kàddu dina ma xam mi wax man la ne hmm? ngi génne ci réseaux sociaux <laughs> jinne ni ñu koy ci nit hmm. alxuraan ngay jàng ko enregistré woon boo paree boo ko tegalee nit ki ne ko lii yaa ko wax dana la waxuma ko dem na ci ay kilifa yu mag yoo xam ne moo la tuddoon tey jii hmm. ay millions la fa ñàkk jinne ji dafa am moment boo xam ne daf lay proposé alal man mi proposé na ma ko ba wax ma ay jat ne ma boo ko waxee sa sijaada boo yëkkatee di nga ci fekk temps ci xaalis ma ne ko bëgguma mu ne ma loo bëgg ma ne ko nga dugg ci lislam te bàyyi caay gi ngay def pendant trois mois maa moom ñu discuter léeg-léeg mu ñëw ñu jëflante ba bu mujj bi bi mu ñëwee dama ne ko la wax mu ne ma damay dugg ci lislam nga tuubal ko force wallahi ma tuddee ko Ali ibn Abi Talib te du benn du ñaar ñu bëri ñoo xam ne tuubal naa leen dugal leen ci lislam kon dama la bëgg a wax ne la bëri na ku yoo xam ne dama am jinne dem jinne loo ko nit di doyee yow nga yow nga yor bindu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk doomu aadama ngay tiitaroo jinneeg rab jërëjëf acca jërëjëf euh, Cheikh Abdou Gning euh, foofu moom euh, ponk boobu ni mu ko leerale loolu lañ ci soxla woon leer na naañ damay ñëw am na lu ma gis mu nekk sa wet mu di benn njaq xaw ma njaqal xaw ma leget gi ak sa xonjom yi nekk ci biir lii nii pour lan la nii waaw lii du xonjom lii ay ay xas la ay reer ak sunguf lii nag. Mhm. dafa am alxuraan ju ma njëkk a dugal. di nga ko gis ci tournée bi. Mhm. lii képp koo xam ne liggéey nañ la. Mhm. ak liggéey bu mën a doon bu ma la ko defaree ba nga bañ gas benn saaru kàmb nga dugg taxaw ci. nga as ci naan ci ñetti guux sangoo ko. ci kàmb gi ngay taxaw sax waaw. ndax da ngay suppeeku li nga ci newoon ci yow. bu xasee dem ba suttee ci ba jeex. lépp lu nekkoon ci yow dañ na. léegi nag am na yeneen yu ñu la war a lay nga ne yooyu kër ga lañ koy joxe moo tax dama lay wax ne la lu mën a ci doomu aadama rek des koy dindi waaye na fekk yow mi ko dindi yaa ko war a dindi ya xam nga kañ nga ko war a dindi xam nga ban a dindi ak lan a génne ba loolu da ciy lu am solo macha allah jërëjëf am na loo xam ne xalaatuma koo fàtte ndax euh, nit ñi ñu ma koy laaj ne ma soo seetee ku mel ni si Abdou ñu ngi na ci dellusiwaat dañ cee gis tawfiya jaare yi ngay def daa mel ne du pour góor ñi kese de jigéen ñi daa mel ne ñëpp fàggandu ñëpp laa ci fàggul liggéey lu bari waay euh, dellusiwaat ci waaw loolu li ma la waxoon rek mënu ma ciy liggéey lu bëri ndax jaaro ñun ni ñu koy liggéey mhm. muy comme bii ma takk ak yi ni mel Mhm. nekkut mooy bii ak yi ni mel nekkut loo xam ne dama koy mën a liggéey di ko def teg sama kër. wax naa la damaa wukkut ak ñoom. Mhm. nit nag su ngeen bokkut bu ngeen bokk fu ngeen jëm. dëgg te ñàkk nuróo googu. Mhm. moo waral du ñu bokk nu ñuy doxee. nit ku defal ay koo dem mu jàll ay jaaro sans jaaro ne la takk nag nattal ngay natt dina ba jot la nga takk na la wér la ja nekk taxoo ko woon a jëm man li ma xam mooy nit ki daal su ngeen da ngay jël turam ak yaayam. xool biddiwam xool wan waxtu nga ko war a liggéey ban bis nga ko war a liggéey ban heure. Mhm. ba xam ko doog a mën a jël loolu nag liggéey ko ci la amee tawféex moom. loolu mooy tax boo ko defee ki jox ko wird bu ko defee at rek. nga gis mu daal di tàmbali am allah. macha allah jërëjëf am na foo xam ne naa fi dellu si ndax uh, du dul dara sax di mbëkk mi nga xam ne ñu topp nañ ko. xanaa ku ci jaar rek ñàkk papier moo tax mbirum koy dañ ci dellusiwaat ndax. Uh, waa mbëkk mi yow yaa wax ba tudd bitim réew nag. mbëkk mi daa am lu ko jiitu ñëw ci muy lan muy président France. waaw waaw waaw. Mhm. ndax dañoo jàpp suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. nga xam ne Sëñ Tuubaa moom la ne antal karimu anal xadimu dëkkal uddimu fi kasanaay. dafa leer. Mhm. xasida gi ko Sëñ Tuubaa way da ko doon bi benn yoon. kon. Emmanuel Macron moom ñàkk xam kan mooy rasulillahi moo tax mu mu dal ci kawam. dugg la fu doy am xam-xam moo tax mu dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa gis nga ñaara ngi nii ku bëgg a mucc àdduna ak àllaaxira na ko moytu. Mhm. mooy jéem a soppi alxuraan ak dal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moom de def daa doy waar di caricature kan ku dul gën gëm ma fàttali la dara. Mhm. nga xam ne moom laa la bëgg mooy. Mhm. premier ministre Israël Ariane Sharon yaa ngi koy fàttali ko. ku ko gëm gën a bañ lislaam amul. dafa leer ñaata at mu ngi nekk ñu montel ko ay tiwo ay appareil di ko doxal muy dund. gis nga yàlla ku ko dëkk da ngay daanu toog dett ngay def. te ku dettelu sa ndigg dam mm-hmm. Macron yàlla la dëkk ak yonent bi. ko gis de mbas mi rek waroon na leen a mën a yee de. incha allahu rabbi du am jàmm ba ilaa yawmi ñu ngi jëmaat ci confinement ñoom. déedéet dama lay wax dara nga xam ko xam nga dafa am lu ma la waxoon ca Charlie Hebdo bu jëkk ba ma ne la. corona beeg lii di ñëw lépp bépp président boo xam ne demoon nga taxaw teew. wala nga bind leetar France pour won ne lañ lañ def ñooña dalaa naqari. Mhm. di nga jot ci musiba meeg balaa bii ñëw. moo ñu ci jotale ñun jotale ci Mali jotale ci beneen dëkk ndax suñu président yi ñun ñoo simisté woon seytaane dem naan dañuy. Mhm. mais ñaata doomu mali la ñuy rey par jour te français yi ñoo leen rey ak ak ak ak ak OTAN. ay julit la ñuy rey par jour ñaata julit bu ñu reyee benn français ñu mel ne France moo gën ci àdduna bi wala benn américain moo gën ci àdduna bi xanaa ruu Macron na joxe photo baayam ñu desee ko képp ku koy défendre joxeel sa photo papa ñu mhm. desee ko. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom moo ne ko wa innaka laxlaa xuluqin asimun yow yaa gën a tedd ay jikko ci nit ñi. sëñ Tuubaa ne ko huwa nabiyu wa rasulu wal xalilu wa huwa mhm. alxabibu wal limaamu wa dalil yaay sama xarit. yaay sama soppe. yaay ku tedd ki. yow yaay ki nga xam ne ci laay tegtaloo ngir mën a yegg. yonent bi mënut a tilim. yàlla da koo setal. Ah. jëlal ba keroog ngay àgg fa mu yem. Mhm. amut yonent bi mësta am maam mu njaalo. mukk ci xoolal ki mu takk. Ah. boo gisee bëggut sax nit am doom. Mhm. moom bëggut amut amuru amuru nit. moom bëggut nit ndax nit kuy dundoon góor di yëg ne góor nga ñaan nga yàlla am doom. moom ñàkk bëgg am doom moo tax mu fekk ko mat yaay koo xam ne doomam sax ko mag mu takk ko. Mhm. ba pare jiite France. jiite waale nag suñu réew yi ñun. li ñu joxe ndigal. Mm-hmm. waaye nag mënuñoo jox ndigal ci yonent bi ndax bëgg nañ yonent bi ba pare te yonent bi jaral na suñuy bakkan jaral ñu jaral ñu lépp. acca lan ngay jeexale ci mbirum papier kayit nga xam ne. waaw bu fekkee mbirum kayit la moom. Mm-hmm. comme li ma la waxoon képp kuy wor mënuñu laa ñaanal ba nga gis liñ lay ñaanal. Mm-hmm. képp ku bëgg kayit wala ngay ñaan loo mën a def na nga bàyyi njaalo. na nga bàyyi mooy yàlla bàyyi fen. munoo dem ci nit jox ko sa tur ak sa turu ndey mu lay ñaanal ngay ubbeeku ci wàllu wërsëg nga ëlbatiku wor ko bu dee ku laabiirut da lay yàq. ndax nit ki nga jox sa tur ak sa turu ndey ak sa turu baay. Mhm. lu dansé ngi noonu. moo tax képp su tukki di ñaan lu ci nit na nga na la doy. kayit nag dañ ciy ñaanal nit ba mu am ko bëri na ñu ñu ñaanal ba ñu am kayit mu ne nii waxatuñ ñu waxu kayit lu ñuy waxu liggéey la ñuy wax. waaye lépp dañ koy ñaan ci alxuraan. Mhm. ak ay xalwatu ak ay riyaada yoo xam ne ñoo ngi koy def. te incha allahu képp ku ñu ko defal suñu borom dana la ci may ndam. ci kattanu yàlla. jërëjëf acca tey lan kay tàggatoo. waaw li may tàggatoo moom mooy comme na ma ko daan defee. di ñaan ci réew mi jàmm. ku fi nekk yàlla na nga am jàmm. di ko ñaan ci réew yi ñu wër. di ko ñaan ci àdduna bi yëpp. di ñaanal na ku tedd ki ki nga xam ne ni mhm. mooy mujaahidul akbar. Mhm. di Cheikh Muntaxa ndax moom fooyu lenn lislaam ku bëgg suñu borom. Mhm. ku bëgg yonent bi ku bëgg Sëñ Tuubaa. te ak taalibe jaral ko lépp. ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool. amiin ak jëwrinam. amiin Cheikh ak jëwrinam. Euh, euh, euh, sa sa a Cheikh Jëmb Fall mm, mm-hmm. noonu lañ koy ñaanalee xalifa yi fi nekk ci réew mi yëpp bàyyiwuñ kenn yow it ñu ngi lay ñaanal jàmm ak tawféex yàlla musal la ci ndog ak cat di wax lama la ma daan wax mm-hmm. sëriñ si nañu bàyyi dóor yi nañu bàyyi tiriande bi mm-hmm. nit bu la joxe alalam doy loola bu ko nëbbutu liggéeyal ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu